les spectateurs yi ñu ngi leen di nuyu leen ziar di am mbégte di leen euh, retrouver waat sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal dal leen jàmm beneen yoon ci seen jotaay bi ñu tuddee good morning di am altine ba aljuma li ko dale 8h30 ba jàpp 10h merci d'avoir choisi cette première chaîne de télévision privée du Sénégal pour vous informer vous divertir et vous y éduquer n'est-ce pas l'importance des médias et l'utilité euh, du service public bonjour et bienvenue aujourd'hui comme tous les mardis on va parler de transport avec Bach Samba Touré qui, lui, aujourd'hui, reçoit les transporteurs ou les vendeurs de voitures ou dans la location simplement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de porter notre choix sur góor gi Babacar Diong wala ñu naan ko Ndiouga moom jaaykatu oto la waaye day luwa ay oto fan fan yi nag ci dàq gi ñu dàq élection bi am na ci ñoom ñiy luwe oto ay jafe-jafe yu métti yu ñuy dund guddi gu bët setagul Zéactor ci geneen wàll gi dana fi dikkaat euh, ca na mu ko daa tàmm di defee muy indil ñu ay prank yu mu amal ngir ñi seetaan ñëpp mën a yemb te déggoo ci mbir yi nga xam ne moom la ñuy néggadiku euh, gannaaw nuyoo yi daan dikkaat a yéen ci li nga xam ne moom mooy ponk yi actualité nam mag man mandargal ci réewum Sénégal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar te di leen dalal jàmm ci good morning euh, bàcc maa ngi lay ziar. maa ngi lay mbaa tout se passe bien. alhamdulilah. yal na yàlla comme ni nga ko waxee comme ñun moom dañuy xaw a yëngu tuuti ci actualité la télévision autrement la 2STV woote ba tax na ñun li gën a nekk actualité dañuy bëgg di ci waxtaan mooy jafe-jafe yi nga xamante ne ñi liggéey ci wàllum louer ak jaay oto moom la ñuy dund jamono ji ñu toll nii lépp jógee ci euh, décision bi nga xamante ne ni président jël na ko dernièrement ñu repousser élection yi fekk ñoom ñu jotoon a jël ay avance waroon na dem ci campagne yeeg xam naa ne léegi tey incha allah dinañ ci yaatal ak suñu ganta tey euh, papa euh, Babacar Diong. <coughs> góor gi Ndiouga. Euh, saar naa la alaaji. waaw maa ngi bàyyi daw liggéey waay. sant bàyyi daw liggéey daw liggéey baaxul. kan daw liggéey. nuy dox di liggéey te bàyyi daw liggéey. <laughs> waaw ne di dox ci ay nekk ci ay liggéey di ci dox rek mais daw bo loolu la woon mais di la nuyu di nuyu suñ papa ji ñu dalal ci plateau bi di sama binom namoon naa la trop gëj naa laa gis. amul trop temps moom xam nga sa loxo ci soos quoi gis naa loolu noonu xaw ma dama lay toog xaw ma nu mu ko demee noonu mais mbaa jàmm. lépp jàmm bu dee li mooy jàmm di nuyu ñi ci plateau yëpp. di nuyu aussi tamit euh, xam nga sama yaay depuis Tivaouane ak sama papa yi toute la famille maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la wax pap tey ñëw nañ leen xam nga parce que keroog dama dawal euh, caméra caché yi rétro yi. <coughs> mooy gis ni euh, backstage gars yi ni yooyu dafa neex dafa neex indil ñu ko mën leen ok. d'accord pas souci balaa ñuy tàmbali waat di euh, di tàmbali émission bi dañu leen di ñëw euh, comment dirais-je moo tax ma choisir tey indiwaat backstage yi yi nga xamante si nii defoon naa ko mu njëkk parce que gars nañ yooyu ñoo gën a succulent ñoo gën a saf ñoo gën a neex quoi ma ne naa leen ko ñamal ba ci kanam bien avant. tu as du boulot à faire alors. waaw waaw waaw waaw. parce que bu fekkee yi nga daa def dem moo gën a neex léegi kon am na lu euh, kii nga quoi. non non non. kii léegi da ngay milanu zee da nga bu njëkk da nga daa weex. <laughs> jaga ba léegi damay weex ah non mais léegi da ngay xëy di toccamiku affaire yooyu c'est que yow yaay weex man su ma toccamikoo rek xam nga kiiwul quoi man maa mos nga maa gis ma weex ma kan yow yow jaga sa weex légendaire je te prouve je te laisse sax kan amul benn image amul benn image gars yi ñoo ko déggandoo nee na amul benn image boo xamante si nii moom weex na ci dina leer incha allah loolu loolu loolu loolu dinaa ci waxtaan ak grec bu baax a baax ñu xool ba xam yow am ngay archive bu weex wala amoo ko. Euh, soo paree ñu jàll ci góor gi ñu. <laughs> waaw baax na père. deuxième partie bi incha allah dinaa leen indi prank yi backstage comme laaje Pape waa mi ngi noonu. yëngu yëg yëngal yi dafa indi gàllankoor ndax euh, mën nañ ne lii waa ji di wax naan ay du yem ci bopp borom. Hmm. boo dëkkee ci immeuble bi euh, néeg bi nga dendal appartement bi nga dëndal di lakk bul ne sama yoon nekku ci. jàppale ko fay ko ndax boo seetaanee lakk ga bu jàppee mën naa jàppaleel sa néeg looloo waral euh, ñu dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy luwe katu oto yi fii ci Sénégal ndax à dix heures des élections présidentielles ci la njiitu réew bu Sénégal dal ne dafay dàq décret bi war a tax ñu dem ci élection yi te dina wax assemblée nationale ñu waxtaan ci assemblée nationale nag majorité mécanique lañ leen jiin vingt cinq députés yu parti démocratique sénégalais fekk ci quatre vingt trois députés yu euh, APR benn Bokk Yaakaar ñoom ñoo àndandoo dal ne bëggunu élection am dàq nañ ko ba le 15 décembre loolu nag dafa fekkoon ñi doon waaj a dem campagne électorale joxoon seen xaalis ay nit ngir ñu luwe leen ay waruwaay ngir ñu mën a dem yembal loolu moo waral ñu invité euh, euh, Baye Ndiouga wala góor gi Babacar Diong mu ngi ci jotaay bi ñu ngi lay siyaar bu baax góor gi. waaw ah, maa ngi leen di def ak coono. ñu ngi ma toogal fii Pape Sidi ñu ngi lay ziar ñu ngi lay teewlu sa émission yu bëri maa ngi lay siyaar bu baax am na solo Moustapha Guèye moom démb bañ koy woo dafa fekk mu nga woon gendarmerie ah, police keneen ka ñu invité yoro xam naa yegg seegu mu nga woon gendarmerie moom waaw mbir yi daal euh, reporter élection yi daal bu leen jàpp ne ça n'a impacté que le monde de la politique et le y a pas que la démocratie sénégalaise qui a pris un coup ñu bëri ci luweekatu oto yi dem nañ ut ay oto def ci xaalis fay ay chauffeur toog foog ne dem campagne campagne des ñu ne leen demu leen campagne ñi leen joxoon seen xaalis ne leen delloo leen ñu suñu xaalis comme luweetu leen ñu. Mhm. ñu ne déedéet ñun xaalis ba def nañ ko bërëb loolu daañu ci dellu si waat ci kanam tuuti ñu dikk ci actualité Sénégal dafa am yoo xam ne ay mbir la yu gànjaru rek yu waa réew mi war a xam. Mhm. Euh, dafa am lu ñuy waajal lu ñuy nas report de la présidentielle et amnistie générale le deal proposé à Ousmane Sonko ci taskatu xibaar yi ñu ngi yëg la ne kon euh, dafa am ñoo xam ne dañoo nekk di dox tànki jàmm ci diggante njiitu réew bu Sénégal euh, coupé ci nañ internet kon ci njiitu réew mu Sénégal Grégoire moom yónnee message ne ma coupé ci nañ internet Moussa Bokar Thiam mii damaa foog ne. mooy par roppi <laughs> affaire yi compliqué na ah. Euh, tout a été réglé depuis plus de deux semaines. Mm. c'est nuitamment que l'émissaire du chef de l'État est allé au Cap Manuel après euh, les diligences et était prise en haute lieu pour une visite pour qu'une visite se fasse à l'abri des regards maanaam. kon jiitu réewum Sénégal yónni na ay ndaw ngir ñu dem ca kasob Cap Manuel ngir mën a jàkkaarloog Ousmane Sonko ci guddi bu suuf seddee ngir ñoom ñaar ñu mën a waxtaan te nit du ko mën a teg bët. Le contact a été facilité par un marabout Mbacké Mbacké qui a été au centre des discussions ainsi que plusieurs acteurs du pouvoir dont les responsables de la l'APR et des proches du Première Dame kon ñooñu ñoo sabab waxtaan wi te liñ ci bëgg moom mooy il a été proposé Sonko une amnistie contre le report de la présidentielle de deux ans maanaam dañ ko ne dañ leen di bàyyi yéen ñi ñu jàpp ñëpp waaye faw ngeen bàyyi njiitu réew mi fi ne président Macky Sall nga xam ne la 2 avril la war a jeexal mu doxal yeneen yaari at ce qui mettrait euh, dans la course avant euh, les cinq ans ce qui devait patienter pour son la fin de son éligibilité moom Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko taskatu xibaar yi waxuñ fenn fu mu ne yéey na ci mbaamu yàbbi ci tomb boobu beneen bi des mooy euh, dafa am loo xam ne moom la ñi doon def càmbar sondage wër ba gis ko daal ne Diomaye am na ay intention de vote bi gën a gàtt mooy 40 pour cent bu gënee bëri dem na ba 48 pour cent loola bu fekkee deuxième tour la mën na koo yóbbu bu fekkee ay nit jàppale nañ ko ku ci mel ne Alioune Tine ak ñooña Euh, ñu ngi ciy dox ay jéego ngir Sonko ñu wàcc ko ci fan yi ñu dëgmal ndax loola mën naa am am déet lu ci mënti am daal nan ko yëgal waa réew mi njiitu réew bu Sénégal bi fi nekkoon di Abdoulaye wadd ak Abdou juuf bu weesoo Léopold sa Senghor mi nga xam ne mu ngi ci bàmmeel ñoom ñaar day def nañ ab communiqué boo xam ne ñoo ko tëggandoo ci li yéene yëgle ne ñoom ñaar nee nañu dañoo bëgg waa réew mi ànd ak dal te dem waxtaan ca dialogue ba ngir waajal élection 15 décembre 2024 Khalifa Ababacar Sall daal ni mukk ci àdduna moom dialogue boobu moom dootu ci bokk waaw ah, waaw kon mbir yi jaxasoo na Thierno Alassane Sall daal ne bis bu amee dialogue ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall loolu dafay nekk trahison ci réew mi ce qui se dit et ce qui dans ce pays est extrêmement compliqué le procureur de Ziguinchor moom ubbi na ab ca kañu fa boom ak ay ndaw yu ñu jàpp bal réel yi ñu tiire la ñu xamut fan la jóge ak naka lay def ba yegg si foofu Pierre Goudiaby Atepa yi tudd nañ ko ca euh, Karim Wade moom gërëm na baayam Abdou juuf ak baayam Abdoulaye Wade ci taxawaay bi ñu am ci réew mi démb nag ca maison de la presse taskatu xibaar yi dañoo def veillée nocturne ngir woo takk der yi ñu xàmmee ci ak neefare bëy hmm. ndax am na ñoo xam ne seen liggéey du lenn lu dut wuti xibaar segg ko door ko saawal ci askan wi loolu moom mooy liggéeyu journaliste mm-hmm. même en temps de guerre les personnels de santé et les journalistes sont admis sur le terrain pour faire correctement leur travail mais fan yi ñu gis bu weesoo gaz lacrymogène dañ cee gis ay liif ay dóor ak i xoqatal yoo xam ne takk der yi ñu ngi koy amal jëmale ko ci taskatu xibaar yi te loolu la ñu ne na dakk préfet nag nee na moom buggut marche am ci ndakaaru marche bi ñu fi waxoon ne dañ koy def marche silencieuse gédo d'eau ba école normale supérieure nee na dakk na am na nag quelques récalcitrants yu naan dañuy def waaye préfet moom li mu joxe mooy nee na buggut marche am ci réew mi euh, kilifaak euh, CEDEAO di président euh, bu Nigéria waroon na ñëw ci Sénégal ngir wax ak président Macky Sall fomm na yoon wa Adji Sarr moom it gis nañ ko ci journal bu mel ne L'As mu ne la libération libération de sonk aji Sarr dit non et menace maanaam Adji saar nee na bu sonk génnee lépp lu mu xam dana ko yebbi ci penc bi loolu nag day indi yeneen gàllankoor beneen bi ñuy tëjee moom mooy ki ñuy wax Massaly moom daal fetalam la yor di tiire ci ndaw ña ne cees loolu nag indil na ko ab plainte te moom mu ngay menacé ñi nga xam ne ñoom ñoo ko plainte te naan moo leen yoroon wala moo nangam nangam waaye daal lii mënees na koo jàpp ci li néew rek ci li xew ci réew mi euh, waaye nag li xew ci réew mi moom mënuñu cee wax lu gën a rëy élection yi dàq nañ ko dàq googu ñu dàq ak élection yi dafa ñu indil yeneen problème les malheurs ne viennent jamais seuls faut jamais dire jamais ou dire euh, l'enfer c'est les autres maanaam fitna yeeg jéye yeeg musiba yeeg alkande yi ñeneen lay dal bàcc ma bàyyi la nga waxtaan ak góor gi ñu xool fan la jógee ak mbir yi naka la tëddee ba ñu yegg ci ci point du non-retour booba waaw alaaji <clears throat> comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeenu waxtaan wi léegi suñu waxtaan tey ñu ngi ko fas yéene jagleel euh, ñi nga xamante ne ñooy jaay aka a oto fii ci réew mi mu nekk secteur boo xamante ne nii xaw na dans tuuti yaakaar naa ne bàyyi euh, bàyyi bàyyi njuga dinañu ci indi lay leeral léegi léegi moom secteur bi ñëpp wàll siyaan nañ ci ndax dégg naa daa am xaalis nag <laughs> ah. <laughs> ci diggante loué oto ak jaay oto dégg naa am na tuuti weccet moo tax ñëpp dugg si nañ. waaw dugg si nañ ci mais mais bàyyi nju ko liggéey bi nan yow mi nga xamante ni xaw nga ci am expérience tuuti balaa ñuy ñëw ci jafe nga xam ne ci ngeen toll. waaw moom ni ñu koy defee mooy ñun ñëpp amoon nañ ay yeneen métier. Hmm. ñu si wàllu siyaane la si ñeneen si wàllu ñeneen wàllu siyaane. Hmm. maanaam ñun dañuy jënd di jaay. Hmm. man damay importer ak Canada laay jëndee souvent oto. bu dikkee ma fay douane. jaay. des fois tamit ma gis si dëkk bi koo xam ne day jaay ma jënd defaraat jaay. Hmm. noonu lañ ci liggéey léegi dem nañ ba nga xam ne léegi dëkk bi ni mu mel fi mu toll nii. Hmm. ku si am mbokk mu nekk Canada rek am nga parking sa buntu kër léegi. Hmm. ñëpp a ngi jaay oto. te oto dafa xaw a nekkul ceeb. xam nga ceeb moom day pare nga jël sànni. Ah. mais oto da ngay dem ba ba ba maam diw moo jaayoon sa maam diw oto bi. boo ko miitoon oto dafay toppante oto yoo xam depuis mille neuf cent quatre-vingt ba léegi ñu ngi daw. ak cent dix-neuf ñu ngi daw déjà carte grise boobu. bëri na ay coono yoo xam ne ñu ngi koy jànkonteel mhm. ndax jëndum oto mi fi ñu toll nii ak sàccum oto mi tar na tar boo xam ne metti na si jaaykat oto yëpp surtout sàccum oto moomu parce que loolu moom doon na lu fréquent loo xamante ni lu ñu miin la jamono ji ñu koy dégg wala ñu koy gis ci réseaux sociaux yi foo duggee nga gis ñuy publier ne sama oto dañ koo sàcc sama oto mhm. dañ koo sàcc ah yéen tamit yéen a ngi dund jafe-jafe yooyu bu baax a baax parce que comme ñu lañ def location mhm. même pas quinze jours sàcc nañ fi plus de quinze oto quinze. quinze quinze oto yoo xam ni yenn ñi ngi ko jëlee Ziguinchor yenn yi Guinée te yëpp dañ ko loué jaay ko. mais heureusement Dakar lañ ko loué. Dakar lañ ko loué ñu jaay ko Ziguinchor te pratiquement ki koy jaay dafay xam ni ñu koy jaayee parce que njaayam oto dafa yomb parce que tey bàcc su ma ñëwee loué oto Babacar Diong. Mhm. dem ut carte d'identité Babacar Diong ñëw jaay ko Sidi indi photocopie d'identité bi jaay ko ak devant ñu légaliser ko mën na koo mité. donc c' est facile. mais est ce que est ce que. mais seen oto yi dafa am GPS. day am GPS ñun comme man actuellement fi ma toll nii sama oto yi ma yóbbu yëpp fi mu doon jaar lépp à tout moment fu oto bi nekk xam naa ko. mais nag mais ko defal contrat de. dañoo am ay def yoo xam ne dañ lay xam d' abord dafay defal la contrat man exemple du mu xale oto parce que dafa bëri. si affaire yi. Blowman waaw Blowman yi weekend dañuy luy oto dañuy teg teg teg teg oto donc dañuy xëy dër si miir wala dara dèjà kon kooku man du ma oto xam naa ko du ma luy benn Blowmato. Hmm. yàlla oto. Hmm. waaw parce que dafa bëri sàcc surtout ni ko rek waa bi temps yi moom. Hmm. dañ koy luy jaay ko dem. oto yu bëri booy dañ koy jaay dem dañ lay luy oto léegi ne quinze jours quinze jours ñu toppatoo seen ay affaire jaay oto bi dem. léegi nga retrouver oto bi yow gis ko donc ñu am beneen problème foofu parce que oto da nga ko luy dafa ko contrat de location boo ko jaayee ñu dem xam na oto mi place sàngam dañuy topp GPS ba ñëw foofu bu ñu dikkee dem police indi ko souvent pour nga jox sa oto problème lay nekk. da ngay yow xam nga oto bi xam nga ne maa ko moom. sama contrat de location mi ngi nii kii daf ko jaay jaay ko légalement te ki ko xam nga oto war nga koo jaay au moins war nga am procuration wala nga nekk borom oto mën koo jaay nit. mais nekk moo jaay yoree sa carte d'identité kay moom. non la wala. non xam nga sa carte d'identité am ko. gars yi dañuy def pexe ba lijjanti ko carte d'identité gars yi dañu koy lijjanti. bu nekk sa carte dañu koy lijjanti. dañuy dem topp topp am carte d'identité des fois sax ñu am nga dem service bi ñu dàq la ne la carte d'identité baaxul fekk dañuy jël Babacar Diongo rek def si mais donc date de naissance bi du bokk ak yu bëri ak sa tur yaay tur papa xam nga tey bu ñu nee Babacar boo xëree Sénégal wër Babacar Diongo benn carte mën nga am Babacar Diongo mais ban Babacar Diongo kii jënd moom du xool loolu yëpp mais boo demee fi ngay miitee souvent ingénieur mooy xool carte d'identité xam ne am na yu bokkul Mhm. problème yi dafa bëri problème secteur bëri na problème tellement que saa yoo xëyee daal xamal ne sa tànk mi ngi fii sa beneen tànk mi ngi fële. que est-ce que waruñu defaat taxaw seetlu ci njaay oto. yaakaar naa ne loolu bokk na problème yi nga xamante ne dañ koy gën a dund fii Sénégal mooy diggante jaay oto jënd terrain gis nañ ci ñu bëri ñu ci am ay jafe-jafe jënd ba jàpp ne ñoom moom après jafe-jafe yu mel noonu di leen dab ndax waruñu soppi doxalin bi nga xamante ni moom la ñuy def. ci jënd ak jaay ci diggante wàllum oto ak yooyu parce que yore carte d'identité ni rek ñëw jaay otom loolu dafa yomb eh, bàcc li ma lay wax mooy nit Sénégal yi moo bëgg lu yomb parce tey su ma dee yow jënd sa oto mu am maa indi sama bopp hmm. am hmm. yoo xam ne da nga ñëw fekk ni par contre waaw non dafa na xam nga parking yi dañuy wax xam ne seerul xam nga problème mooy des fois kii indi client bi moo indi problème si parking bi mais boo doxee ñëw ba si benn parking gis oto waxaale fekk borom parking mu jaay la ko dafa lay papier lépp kooku au moins di nga xam ne fii laa ko jëndee. Hmm. mais dajeeg man si mbedd mi ma jaay la sama oto mais kooku boo amee problème sa bopp. Hmm. souvent loolu moo ëpp problème si dëkk bi oto mi parce que xool bi ñu demee Ziguinchor pour jël suñu oto amul fu ñu dugal lu ñu mujj wax dañ leen ko dénkaat ngeen téye oto yi parce que ñu ngi topp procédure parce que oto bi jaay nañ ko des fois ñeenti nit oto des fois fukki nit ñoo jënd fukk dama la koy jaay nga jaay kii kii jaay muy dem kenn du miite maam li ñu war a sopp mooy njaayam oto bi ak. nga am procuration pour defar acte de vente. Hmm. mais tey pour defar acte de vente c'est facile mën nga jox démarcheur mu defal acte de nga jël joxe ne yow jaay nga oto bi légalement kii dem miite da ngay miite ba pare ñu xëy suba ne oto bi ko. te dem ba si fon bi ngay xam ne oto bi ñeent jaay nañ ko ñeent nit dafa xaw a compliqué. mais est-ce que mënuñu def kuréel goo xamante ne nii par exemple gox boo dem am na police wala gendarmerie. Hmm. ñu jéem a fexe ne. tijji nañ benn benn benn benn béréb boo xamante ne ni ci biir gendarmerie wala ci biir police. ku bëgg a jëndati oto wala ku bëgg a jaayati oto foofu nga ko war a mën a defee. mais loolu am na bàcc xam nañ ne police centrale. Hmm. ak gendarmerie conk ñooy def légalisé. ñaar ñoo nañ ko autorisé. Hmm. am na dèjà kon ñoo war acte de vente légalisé mais est-ce que au moins pour gën gën ko jegeel askan wi ngir jënd meeg jaay mi gën a yomb tey su ma nekkee waaye du jar may jugee waaye di ñëw ba central wala ba conk mais mu mun ko def si commissariat bu nekk a wala wala wala. waaw mais loolu loolu d' accord naa parce que xam nga tey li am Sénégal moo fi des Sénégal da ngay gis ko yor ay cinquante papiers dem service de mine di pratiquement yeneen dëkk yu bëri fi nga jëndee oto la ñu lay mutilé jox la sa carte ak xam nga boobu hmm. xam ne boo jëndee léegi oto ñu jox la sa carte ak defal la lépp mooy décentralisé mais fekkee ni ñu ko bàyyee nii. Hmm. mu nekk ay système xam ne ku ne lañ si ut dara. Hmm. dafa xaw a euh, bëri gos daal trop trop métti na métti ba xam daal tar na jaay moto bi daal xam naa. bi métti na mais bon am na dara mais bëri na risque tamit. gën a wegu rek denc seeni i balaa koy nit di jël di jaay seen i wata. beneen bi ma seetlu ci wàllu jaay oto yi fii ci Sénégal. mooy accident yu bëri jaaykatu oto yi ñoo koy indi. pas yow personnellement. mais jaaykatu oto yëpp dans le cadre ndax dañuy dem bitim réew. am oto yoo xam ne dañu def accident. ba lor seen i borom foofa. Hmm. ñu war ko yóbbu à la maanaam war koo yàq wala war koo tasaare nga gis ku ko mën a jënd jëndaale pièces yi ci yàqu lb damm wala port bee yàqu wala nangam nangam indi ko dëbb daaxe ko dëbb daaxe dëbb daaxe ba mu ba mu ba mu neex ci gis. fekk na am na ay couac ci wàllu électricité bi wala couac ci woteur bi nga yoru ko départ na yaa nga jëm Ziguinchor wala départ na yaa nga jëm maatam mu takk wala mu def accident wala dootoo mën a am contrôle ci yenn yi. Euh, loolu aussi jaaykatu oto yi ñu ngi koy lore waa réew mi. waaw loolu am na euh, li nga si wax si bi dafa am oto yoo xam ne salvage lañ koy tuddee. Mhm. maanaam dafa am choc. Hmm. ça dépend fi choc bi parce que quatre vingt pour cent ñun oto yi jënd muy salvage dinañ koy mën a def parce am na yoo xam ne yeggul si moteur bi si aile bi lay nekk xam nga ñoom ñu tuddee salvage bu xoosu rek am na salvage même dafa am na yu bëri day am ay salvage donc kon ñun oto yooyu ngay wax ñu koy indi ko defaraat boo xoolee oto yi si suñ dëkk bii ne fi. bu ñu yombaloon oto yëpp dugg yaakaar naa moo gën a yomb lool parce yi fi mhm. nekk def fi vingt ans ñu koy dëbb daaxee ba xam ne oto yi sas bi dootul baax soog bu mu def rek xam nga lu mu ndaw ndaw ndaw day aw si sas bi soog boo dis rek day dem oto bi donc oto yi bi ñoo gën a bon d'abord mhm. ñu bàyyoon mhm. boo xam def na vingt ans trente ans amul soog amul dara mais dafay dëgër bu ñëwee Sénégal day mel oto bees mais xoolal oto yi daw taxi ak car rapide yeeg oto yu bëri si dëkk si dëkk bi oto yi xam ne fi ñu kuñ mbëkk da ngay mais Salvesti pratiquement bëriwul ay choc yi parce que dañ koy defar xam nga bu dee oto bi da ñëw fekk choc bi L rek nga jënd L def si bu dee moteur la nga jënd moteur. mais na sa sa hmm? maanaam sa yitte ci doomu aadama. Hmm? tax na choc bi bu yeggee ci moteur bi doo ko laal. Ah, mais am na ñoo xam ne nu mu gën a yombee ay 1000 euros wala 1200 hmm, euros. wala 1500 euh, euros la ñuy jënd. Sénégal moom la mel dafa yaatu Sénégal moo demee xamante ne ni surtout ñi nga xam ne dañuy jaay au marché noir. waaw dañuy jënd boolewaale ko pièces yi jënd nga xam ne oto bi bu dikkee deux mille cinq cent euros la leen di dikkee boo demee di ko dédouané dédouanement bi du yegg yenn njëg yi. non fourche bu weng wala nga nga nga nga dëggu daal ko jaay ko man man man naa sam bopp man mosuma indi salves mais xam naa ñu ko indi te xam naa ne ñu ngi koy defar defar bu baax di ko jaay. nekku dama leen defaan quoi damay fekk ñu indi ko ma gis ni ko defaree parce que man def naa tôlerie man def naa tôlerie peinture xam naa oto au moins xam naa choc fan lay yegg si oto xam naa si carrosserie lu bari parce que dama def tôlerie def peintre bon donc xaw naa bëri ay métiers yu bëri ma def lii ngeen def def naa ko parce que laborantin la yoroon naa ay laboratoire photo pratiquement photographe Sénégal yëpp ma xam kon donc xam naa si oto lu bëree bari choc yi quatre-vingt-dix pour cent nekkul ne mooy indi choc yi mooy dañu war a xoolaat suñu chauffeur yi ak ni ñuy tondree ni ñu amee permis loolu la war a xoolaat ak visite technique yi ni ñu koy amee parce que oto bi tamit sëñ bi bu fekkee dafa dem am visite technique am pièce complet day daw mais nan la war a amee visite technique oto boo xam ne ko gis kii lu bëri man dem jàpp nañ oto xam ne ñu ma jàppee benn lampe plaque numéro bi d'accord naa dama dem fay contravention mais gis ku amul ay làmp daw koo xam ne amul frein amul amortisseur yi baaxut amul visite technique loolu la war a xool choc yi loolu oto yi nga xam ne waruñu am bi ñu di ko am loolu la ñu war a xoolaat ak chauffeur ñu yaru loolu mooy problème bi mais pratiquement choc yi jógewul si Salves mhm. foofu lay gën a jógee mais Salves yi dafa parce que dafa am benn étude bu ANASER def mhm. Mhm. mu ne quatre-vingts pour des accidents découlent de la responsabilité humaine maanaam téeméeri accident yoo jël juróom-ñett fukki nit ñi ñoo ko indi mandi waaw toxum yàmbaa naanum sàngara gëmmentu wala coono. waaw coono wala reewaande. mooy indi quatre-vingts pour cent accident yi. Mm-hmm. mooy découle du comportement humain. Mm-hmm. mu ne euh, dix-neuf pour cent yi. Mm-hmm. astafurlaa maanaam dix-neuf pour cent yi mu des euh, vingt pour cent mu ne onze pour cent yi c'est des problème par rapport au véhicule pour cent yi la ñu wax problème d'infrastructure maanaam affaire yoon yeeg yooyu ci la ko tënk ne lii mooy indi ñaare gàllankoor yi kon xam nga répartir nañ li nga wax dëggal nañ ko ne 80 pour cent juróom-ñetti fukk accident yi téeméeri accident yow gis juróom-ñetti fukk yëpp nit ki moo ko indi. Mm-hmm. mais nag 9 pour cent 20 11 pour cent n'est pas à négliger. parce que bu fekkee oto bi dañ koy def salvage euh, nga gis ñoo xam ne am nañ honnêteté ne lii duñ ci dugg duñ ci dugal seen njaboot. Mm-hmm. mais attan koo jaay ngir mën a am njëg gu gaaw fat-fat parce que oto bi bu fekkee danga koo déparé. Euh, France mbala kanada wala Allemagne wala fenn mu accidenté ba bu yegsee dakaar nga fay dédouanement mu dikkee la 3 millions te oto bi mu nekk Mazda boo ko jaayee mën koo weccee 7 millions danga naan mais c'est de l'argent facile. ah c'est de l'argent facile. c'est ah, loolu aussi jaaykatu oto yi xaw ma ndax am ngeen ligue pour mën a euh, dénoncer yenn mbir yooyu wala contrer ko mais loolu mu ngi indil gàllankoor. Mm-hmm. ci loolu la ñu la ñu la ñu wax ne. c'est pas parce que vous vous ne le faites pas Yoro ne le fait pas que tout le monde le fait am na ñoo xam ne mhm. seen mbonte yegg na ci jënd oto boo xam ne xalaatuñ cee dugg xalaatuñ cee dugal seen njaboot mhm. pour def long voyage parce que nekk oto ci biir circulation Dakar yi c'est pas compliqué mhm. mais bu fekkee da nga jël oto taal ko ne ko ay ca ñu dem euh, Bakel oto bi dana dana dana dana dana soxla dara dooley moteur am lu am defa ci oto bi dana feeñ loolooy problème bi danga danga da nga da nga résumé daanaka lépp. waaw suñu jugee ci Salvez bi. Mhm. ak jafe-jafe yooyu noonu yëpp. ay ca yoro bisimilah bisimilah gaw gis nañ gis nañ gis nañ oto yoo xamante ne nii. seen mhm. jafe-jafe mi ngi jógee ci. Mhm. ñii dañuy indi Salvez certes. mais am na ñoo xam ne dañuy dagg seen oto. waaw dañ koy dagg. teg ko ci conteneur wala nangam indi ko suñu ñëwee fii ñu sambalewaat ko mais oto boobu mun mënul am équilibre. déedéet. oto bi niñ fi ñu koy sambalee di ko defar. am na ci ay normes yu ñu ko teg yoo xamante ne nii am na lenn loo ciy wàññi wala loo ciy yokk rek oto bi mënul am équilibre. loolu moom bàcc li ma si d'accord ndax na ñu koy dagg boo des fois da ngay am sax fekk benn oto ba xam ne. xaaj bi xaaj bi ngay fekk ñu tegal la ko. loolu ki koy def kooku moom danger parce que loo xam ne doo si dugal njaboot waroo si dugal njaboot jàmm parce que la ñu loolu la ñu mooñaale Sénégal yi xamul loolu hmm. mais nag bëgg dërëm ak bëgg argent facile souvent mooy waral ñeen def yenn yi loolu koy def ñun ñu ngi koy ñaawal parce que hmm. duñ ko hmm. def te bëgguñu koy def parce que am loo xam ne boo ko defee mën nga dem ba yow sa bopp mu lor la parce que ñun ñëpp benn lañ Sénégal tey lu may xeex pour man rek maa ngi xeex pour sa njaboot ndax xaw ma fan la sama njaboot duggee ëllëg mm-hmm. kon donc nit ki foofu la war a xalaatee loolu tricherie la maanaam nga am diplôme boo xam ne jàngoo ko dem nekk médecin boo ku dee rek yaa ko rey ak professeur bi la joxoon diplôme bi c'est la même chose li ngay wax rek benn mm-hmm. mooy loolu d'accord naa si indi oto li ngeen ñu ci a dimbalee mm-hmm. mooy ligue bi Pape di wax léegi. Mhm. nan ngeen mën a def ba jéem a fexe yéen les professionnels bi nga xam ne ñoo nekk secteur boobu. Mhm. ngeen dajaloo booloo. c'est même pas organisé par l'État déjà dans un premier temps. waaw c'est ma neexee man mii suba ma xëy dem euh, Corée ay salvage ñëw commencé. surtout fan yii Corée la gars yi jël non moom. kooku du du du ñun luñ siy mën du bari kooku li siy gën a mën dal mooy douane bi. ak euh, ñoo si mën dal parce li nga man mooy boo jëndee oto mu nekk salvage dañ ko gis. mais bu mais bu dikkee ñu def ko fourrière. mais numéro sachet bi boo ko dugalee rek ñu wan la moom ban ban. xeetu soxla amoon oto boo dugal fi mu toll xam ban soxla amoon. ban soxla amoon donc may léegi pratiquement dañ dañ koy partager ma la jaay oto nga tàppee bi génne ne oto bi am na soog wala na soog meloon yëpp nga la jënd ma pratiquement ñu bëri dañ ko am léegi. Mhm. pratiquement ñu bëri dañu am numéro bi dañ koy tàppe am na fu ñu koy dugal wala na oto bi soog bi la defoon doo ko jënd. Mhm. waaw loolu am na mais nag li tax mu dugg si dëkk bi ak ñi nangu mu dugg dëkk bi ñoo ñoo war a fexe dugg mm-hmm. waaw yenn choc yi moom war nañ ko toléré ay aile arrière ay benn porte bu yàqoo yooyu nga xam ne c' est facile da nga jënd porte monté ko mu dem loolu du problème mais yenn choc yoo dañ koy dagg moom war nañ ko ah, boo demee jënd oto mm-hmm. day def transfert sa eh, indil la ko indil la ko mm-hmm. te da douane génne mais da douane mais am na si kay ne war nañ xool oto bi xam na mel bu ñu xool am na mais bien am nañ pas responsable bu ñu tàppee sas bi xool na choc bi dafa grave grave boo xam ne sax mënatut daw ñoom war nañ mën a ne oto bi du génn. mais ñoom duñ xool loolu. d' pour nga am dig sax da ngay fay duwaan ba pare ñoom problème mooy na nga fay ba pare. waaw ñoom seen kees na dugg ba pare ñu doog laa dem dig ñu ne dig oto bi c'est volé ñu doog ko téye. waaw loolu nag problème tey boo ñëwoon indi oto suuf duwaan di ma ko jaay su ma ko jëndee damay dem duwaan fay. Uh-huh. su ma fayee duwaan pare su ma demee ba dikk lañ may doon oto bi c'est volé te pourtant moo nañ ma oto bi c'est wala c'est pas wala ñoom seen xaaj na dugg ba pare donc moo tax salvestre lépp la ñuy jël ñoom récupéré ko hmm. mais bu ñu ko récupéré pare sax moom nañu fexe comme indi nga ko te nañ la ko teg lay suspension bu ëllëgee doo ko indi doo ko indi loolu dafa xaw a métti voilà c'est compliqué mais bon c'était pas ça le sujet aujourd'hui hmm. Yoro mu ngi door a yegg bi Cheikh euh, maam Cheikh maa ngi lay siyaar ba euh, nu ngi lay siyaar bu wér Euh, dalal jàmm ci jotaay bi yaa ngi nu fekk ci waxtaan woo xam ne ñu ngi koo bëgg amal mhm. euh, maa ngi nuyu ku ñuy wax mbëggi ci Thiam qui di euh, salvage ne veut pas dire que la voiture est de mauvaise est mauvaise des fois euh, c'est dû à l'assurance qui pense que c'est une perte d'argent de le réparer mais foofu aussi def si am sew sew parce que ah, tubaab bi dofuñ dina jàpp leen mhm. ñoom ils sont dans un univers où recycler moo leen gënal mhm. toggaat lu bees donc bu ñu demee ba ni lii mënuñ ko defar donc boo ko joxee suñ gars yi ñoom am nañu fit moom mën nañoo defar moom waaw ci àll yi comme boo demee par exemple Kédougou wala yenn dëkk yu xaw a sori Ndakaaru hmm. bu ñuy passé visite technique dañ naan la fotol ñu oto bi rek yónnee la léegi ci la ñuy xam ndax mën nga am visite technique ak loolu <laughs> donc ce qui veut dire que y a qu'en Afrique que ces genres de choses se passent ah euh, euh, ci euh, ndax mën nanoo waxtaan ci li nga xam ne moom moo di ay du yëpp yem ci bopp boroom ndax yéen fan yi defe naa yéen a ngi ci fitna gu tardé yéen ñuy loué oto yi Cheikh waaw ça euh, <laughs> euh, balaa balaa balaa balaa góor gi juga euh, di jong di wax mm. ci loolu mooy mm. situation actuellement bi ñu reporté élection yi indi na leen ay problèmes yu bari waaw salaamaaleykum maa ngi ziar ñi ma xam ne yéen laa fekk te dalal ma fi mm-hmm. di ziar aussi ñi ñuy seetaan di ziar njiitu réew mi ak ñi mu àndal ci liggéey bi di ziar Sénégal yëpp waaw voilà Pape Sidi mhm. li nga wax noonu lu lu metti la parce que instant bi bu dee dañoo am lu ñu wax ni tey ji dafa am élection mu am ay candidats yu war a dem élection war a jël ay oto ñëpp xam nañ dañuy loué ji ay oto parce que ñoom amuñ oto yu doy pour mën a wër Sénégal léegi agence yu mag yi ñoom dootuñu dox si loolu léegi ci agence yu ndaw yi lañuy ñëw ñun agence yu ndaw yi bariwuñu doole. Hmm. léegi problème day ñëw parce que bu boobaa yow da ngay dem pour wuti ay oto ci ñi nga xam ne ñoom nga yàgg séqal liggéey. Hmm. boo jëlee seeni oto ñoom ñu si bari du ñu ay professionnel tey ñoom am su ñoo xam tey ji ku mel ni Pape mën naa mën na nekk sama xarit. Hmm. mu bëgg dugg ci location bi ne dafa bëgg benn soi-disant régler benn problème am. danaan ma am naa benn pick-up soo amee location mën nga ma woo bon moom du professionnel yow boo ko joxee avance lu muy njëkk def mooy defar otom hmm. waa parce que loolu lay parce que oto bu dem ci àll dafa war a baax. Hmm. comme li ma jot a fekk ngeen doon waxtaan léegi. Hmm. amortisseurs yi biel yi rotules yeeg. yëpp pneu même les pneus pneu. même les pneus te ça coûte cher ah. trop cher. yow nga ñëw ñu jox la avance nga def ko ci loolu. lii ñëw bett ñëpp dal suñu kaw du si jugewul ci ma sàmba jógewul ci ma Mademba kon foofu. lu président la jóge <laughs> li ma xalaat mooy dañu war a toog waxtaanee ko xool ay solution mais pas ngay ñëw di dem xool sa benn xarit boo xam ne homme de loi la ngay dem yóbbu fa ma Masamba ne ko na ma fay daf ma amel sama xaalis mais non loolu du amel parce que kooku da ngeen am benn contrat bu bu ngeen xam ne moo leen lié. est-ce que c'est rédigé le contrat. et en bonne due et due forme. Mhm. loo xam ne tamit tey yi ñu nekk dëkk boo xam ne pour nga liggéey fi. Mhm. nga nekk fi gor. am na lu ndaw ñu ñu salfaañe say say say ak say yelleef mhm. parce que man mënuma concevoir tey nit ki kii du du truand du du bandit du agresseur nga jox ko xaalis mu ni la dama soxla sa oto nga kooku àndi otom teg ci chauffeur lii ñu dal dal ñu fay chauffeur ba. mais bien sûr grand da nga koy fay. da koy fay parce que sinon chauffeur bi du déplacé wu. am ñoo xam déplacé wu dem nañ ba Ziguinchor ñii dem nañ ba Kédougou. waajal campagne ah, dem ñu jël sa oto branding ko. branding yow xam nga nu mu demee. day yàq sa waaw voilà sa peinture. bu dee du original moom boo koy dindi doo koy yóbbaale. am nañ ci ay cas mais yooyu dañ koy régler ñun entre ñoom. Hmm. ñun ak ñoom dañ koy régler. Hmm. mais man je pense que normalement pour man. président bu demee ba jël décision yi am na ay mesures d'accompagnement. léegi non si. léegi nag ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jël agent agence yi ñoom ñu nekk si diggante bi ñoom ñoo bëgg andi ay carambolage pour man. Mhm. parce que ñoom ñooy persister naan nañ leen fay seen xaalis. bàyyi yóbbu ci yoon di ci am. mais dañ lay yóbbu ci yoon. est-ce que vous avez des anecdotes là-dessus. mais bari na grand. bari na si nag. Hmm. ñun ñuy jógee ak ay plainte. yow mii. ñun waa parce que agence la. waa kër Khalifa Sall jox nañ leen oto ñun ñu koy laaj seen xaalis waa kër euh, Boun Abdallah Dionne jox nañ leen oto ñu ñuy laaj seen xaalis bon jeune je ne dis je ne dis que ñoom la mais aussi day baax ci moment yu mel nii nga profité ñoom tam ñu xam ni ñi nga xam ne ñoom la ñu liggéey ñu ñuy laaj seen xaalis te c'est pas normal c'est pas normal parce que yow tey jii normalement su ñoom ñooñu ñu war a amel parce que man mënu ma concevoir yow nga ñëw signé ak man mois contrat man ma respecté sama contrat andil la li li nga bëgg tegal naa la sa oto tegal la li nga xam ne moom la war a àndal muy chauffeur bi yow nga ne un mois nga ma jël nga jox ma avance quinze jours bu lii amee sax yow da nga ma war a dédommage mais bien da nga da nga ma war a da nga ma war a dolli sama yeneen quinze jours parce que contrat lañ si woon mais warul retourné naan ma jox ma jox ma li ma li ma la joxoon ci loo xam ne yow tey am na su koo xam tey ji da ko defee opération am hmm. na ko xam ba nga ko joxee dafa dem pour faju ci am na koo xam ne ba nga ko joxee xaalisam dafa dem fay ci traite mais loolu nanga koy mën a régler nan nga koy mën a régler bu dee tooguñu waxtaan foog ñuy toog waxtaan parce que lu bette la de toute façon élection dina am ah. lu bette la mais léegi nag boo amee da ngay rus élection dina am de toute façon moom xam naa dañ day yéex waaye euh, mbaamu gaaw waaye élection moom dina am. père père père Babacar yow ancien nga ci mbir mi. yaakaar naa mais du Khalifa Sall ak Boun Abdallah Dionne kese. assurez-moi ñëpp la. non mm. ah non xam nga. bon man ñi ma jox laa mën a wax ko jox la mën a wax. waaw man pratiquement dama couvrir ay sama waa bureau ay campagne yu bëri man sax ren joxewuma oto si campagne bi parce que sérieusement dama arrêté oto dama joxe si campagne mais pratiquement parking nekk HLM dañu bëri oto yu joxe ñoom ñëpp. démb wax naa leen émission bi ñu ne kon grand demal teewal ñu. Mhm. joxoon nañu oto am nañu ay problème parce que d' abord li nga wax li si gën a grave mooy boo ma nee dama sa oto le vingt man du ma ko joxe. Mhm. damay dem entretenir oto bi toog di xaar du ma mën jox keneen. Mhm. d' abord yow bloqué nga mënut ma jox oto bi kenn ba pare nga jox ma sa avance wala doo ma ko laaj parce que da nga ma jox pour un mois bu ma amoon beneen contrat dama koy annulé ndax yow. kon dèjà kooku boo ko joxee li nga wax pare mooy mesure accompagnement a ne annulé nga élection yi ay da nga si war a boole loo xam ne am la ñuy joxoon oto yi am na ñuy doon lu bëri dem nañu jël nañu ay baas ay rajo lu ne am na. si hmm. problème oto la ñuy wax. mu ngi mel ne Pape Djibril dem fay benn euh, agence publicitaire mu tafal ko <coughs> yëpp léegi élection yi ñu annulé ko mu dem ci borom affiche yi ne ko fay ma sama xaalis te defar nañ. affiche ba pare ba pare. c'est compliqué hmm. léegi c'est compliqué ñun dañu am problème mooy. actuellement képp koo xam ne am nga auto joxe woon ko rek. Hmm. am nga problème ak ki nga mag a mag bu mag parce que benn. da nga dem entraîner oto bi oto bu ñu la nee day dem li nga wax li ma répété sax parce que la même chose oto bu ñu la waxee location la pour campagne da ngay prévenir oto bi lépp nga def ko parce que bu amee dog dog ci diggante bi rek maanaam mën nañ annuler contrat bi donc raison pour laquelle il faut nga dem dugal ci xaalis ngir oto bi nekk ci dispositif maanaam ki war fay mhm. parce que man boo nekkee à l'extérieur souvent oto yi muy bëri bëri yu nekkuñu fi dañuy ñëw grand dama soxla le quinze ba le réservation maa la yónnee xaalis bi nga fay ma denc ko su ma ko doon joxe ba mu def deux jours trois jours dama koy ñi ma réservé parce que bëggutuma jox keneen parce que yaa ko réservé c'est la même que campagne bi da ma réservé loo sama tool réservé naa ko pour yow mais da may fay du ma la amul ma yaa may fay. Mhm. parce que yaa tax ma réservé ko amoon naa beneen client bu nekk Kédougou soxla oto wala dara joxuma ko ndax yow da may fay sama xaalis. Mhm. cest à man ku ma jox avancé bi Ah. président bi nga xam ne moom moo génne am na fa non ah, si parce que mënoom ñoom fay nañ ba pare instant yi waaw fay nañ ba pare waaw man loolu foofu la réservation waaw foofu waaw foofu am benn arrangement waaw bu ñu arrangé parce que ki nga xam ne moo annulé élection yi ñu ko annulé ñoo waroon def ay mesures d'accompagnement xool yëpp parce que dafa bëri secteur yoo xam ne fi toll nii da ciy metti da ciy metti trop trop trop parce que mënoon ne annulé nañ ko rek ñëpp toog dañoo génnee ngandamal moom plateau non mais xoolal décoré samedi dix des élections président daal ne. dix heures amul amul léegi <laughs> imagine quoi loolu ñëpp ñu am problème Sénégal am ku am amul problème amul amul problème. secteur yi impacté bëri na. ah surtout yaakaar naa ne yéen war ngeen ci jëlee jàngat bu nga xam ne war naa tax ngeen def taxaw seetlu. Mhm. xam nga Sénégal nag dañoo mën a dox ci informel. waaw. secteur bi ngeen nekk dafa nekk secteur boo xamante ne dafa laaj lu formel. Mm-hmm. lu organisé. Mm-hmm. loo xamante ne lu ngeen war di waxtaanee la parce que yéen ñi nekk ci secteur bi daanaka yéen ñëpp xamante ngeen. ñëpp xamante su weesoo gone yi ci ah, mujjee dugg. waaye bu ngeen fexee ba organisé wu yéen mag ñi yore ay structure yoo xam ne c'est très bien organisé ngeen xam kenn ku ci nekk teg ay sart yu leer ci yenn yenn yenn situation yi su su jamono ju mel ni amee. yaakaar naa ne. mais ñu dañ leen yóbbu ki ñaari invité yu ñu euh, ñaari nit ñi ñu jokkoo pour invité yi euh, pour ñu ngeen ñëw. Hmm. kenn ki dañ ko mu ne mu ngi police parcelle. dañ ko ah. fa porter plainte. keneen ki dañ ko mu ne mu ngi gendarmerie foire dañ ko fa porter plainte. sincèrement te ñooñu dañuy dajaloo nekk ci fitna. Hmm. parce que mën na bañ a am mu nekk politicien bi directement. Hmm. mais ñi nga xam ne ñoom ñooy courtier yi nekk ci diggante. Ah, politicien bi ak euh, kii yor société de location de voiture. instant yi ñu ngi leen di teg fitna bu dul jeex. munoo joxe munoo joxe munoo joxe trois millions ne damaa bëgg euh, oto pendant un mois benn oto nga ni léegi soxlaatuma oto bi pour un mois léegi delloo ma samay trois millions. te nit ki dem na yóbbuwaat oto bi réparation parce que xamul ndax dinga dem Dagana. amul ndax di nga dem Goudiri amul ndax di nga dem Goudomp. amul ndax di nga dem Kousanaar foo jaar rek moom li mu waroon a def wàccoon ak yow fay na chauffeur pour réserver la ko. Mhm. jën jënd na temps de péage def ko ci carte jën na essence jox ko chauffeur bi ak ay frais de mission léegi nga toog ba mu yàgg rek nga ni këtt na jon na ko lépp wàcc naa ko fi mu ne nii delloowaat ma am xaalis il faut que mu am tab il faut que ñu waxtaan ko delloo delloo moom mënta am xam naa ne nag moom waxtaan mën naa am ñu xool mm-hmm. ndax nan lañ mën a def ba déggoo mm-hmm. mais delloo moom mënta am waaye xam naa ne yéen li gën a nekk jafe-jafe ci Sénégal xama lan la intermédiaire ah, boo demee ci kër ñu ne la courtier. courtier waaw. nga ñëw si njëndum oto mii. ñoo ëpp courtier ñooñu nga dem si. <laughs> boo demee ci arrêt arrêt yii bëgg a jël oto. Ah. ñu ne la coxeur mi ngi fi taxaw. Ah. maanaam intermédiaire yooyu noonu tout le temps dafay tax ñun. ay charge du yokk ci ki nga xam ne moo war a jënd wala nangam ak nangam. Eh, ambassade France boo fa demee bëgg visa sax dañ lay yóbbu seen courtier invitation kenn mënu a dimbale sénégalais yi la. ci intermédiaire yi xew ci situation yi. bu état bi moom moo ko nangu ne. yow boo nekkee chinois ñëw fii tabax fi autoroute di ko fayloo sénégalais yi da ut ay société intermédiaire ñuy jël ay jigéen ñuy xëy 5 heures du matin di liggéey ba 18 heures di wàcc ñu leen di fay 40 mille wala 35 mille société intermédiaire ñooy def loola ba pare ñee bu ñu waxee ñu dàq leen di leen defal ay contrat 3 ans nan leen stage wala dañ leen di tester ndax yéen a ngi def liggéey bi normalement mais tout ça c'est des c'est des choses c'est des choses qui existent au Sénégal ah. malheureusement on ne peut rien y faire euh, automatiquement Cheikh. voilà bon cas bi nga doon wax léegi. Mm-hmm. bokkul ak ñun suñu suñu suñu problème. Mm-hmm. parce que comme ni ñu ko waxee. nous nous sommes bien structurés maa ngi jógee ci taf taf automobile mm-hmm. agence bu nekk stat en face stade en fait bon bien structuré aussi. je salue de passage. samay xarit lañu ñëw. voilà ñoom Yoro Mbaye mhm. xam ne moom mooy directeur bi. Mhm. ak waa XL auto mhm. moo xam ne moom sëñ Mbacke. sëñ Mbacke ñoom ñëpp maa ñoom Yoro dafa xaw a taw tuuti ñu ngi koy ñu ngi koy ñaanal mu tane ak jàmm. voilà voilà. Farba moo ko liggéey. Farba Farba kenn du moom. <laughs> waaye Ibrahima Ndiaye Farba suñu doyen. moom aussi mu ngi côté. cité Damel bi. no waxuma Farba boobu Moustapha Guèye laay. Moustapha Guèye ah moom tam sama sama doyen la. Mhm. muy ku baax. sama rakk la. Mhm. ah macha allah waaw macha allah macha allah bon li nga doon wax léegi ñun dañoo organiser wu mais problème bi mooy tamit aussi courtier yi lu ñu parce que loolu du niveau courtier yi. déedéet même boo demee gendarmerie dañ la naan li courtier yi lekk garaawul. li ñuy jox chauffeur yi garaawul loolu moom maa leen ci saluer de passage mais suñu problème mooy ñu nekk ci diggante politiciens yi ak agence yi. mais mooy intermédiaire bi nag yéen bi waaw mais mais. non mais intermédiaire mooy courtier ki am suuf euh, mais c'est un businessman quoi en fait. kooku businessman la day wut xaalis. bon man man gëw ma ni sax que ni politiciens ñu ngi leen di laaj seen xaalis. Mhm. parce que ak xam nu dëkk di doxee. Sénégal dëkk dëkk la bu am yoon. man gëm naa ne président Macky Sall genre ndogal yu mel ni bu ko jëlee dina am lu mu ko booleel. mesure d'accompagnement bien sûr. laa moom man leeruma mais xam naa ni. dina ko def mais ñoom ñi nekk si diggante bi ñoom ñoo ñu sonal loolu aussi moo taxoon ñu ne nañ ñëw fii ñu leeral loolu mais lan ngeen jàpp ne moo mën a nekk solution waxtaan te waxtaan bi du dara lu du ñëw toog tey jii ki nga xam dañ ko jox xaalis par exemple un million cinq cent le mois bu dee comme un mois bi un million cinq cent bu dee ki nga xam tey ji moo nekk ci suuf parce que les contrats contrats yi parfois quatre vingt mille lay doon par jour di wàcc di wàcc ba dal ci cinquante mille ba quarante mille <laughs> des fois quarante mille mais bon c'est rare parce que campagne électorale dafa nekk loo xam ne ñëpp ay soxla pick-up pick-up te day rare te yow ñi ngi koy jox ñooñu da nga fa dafa loo xam ne da leen ko séddee parce que bëri na ñu lay laaj yow nga bàyyi ñëpp ñoo jox ko kon dafa war a rafet hmm. et man du ma nangu ñoom tey jii les politiciens ñuy yàq sama diggante ñi nga xam ni damay liggéey ak ñoom ay maintes fois ku mel ni Dansar aussi de Lansar je le salue de passage. Mhm. moom bu amee liggéey daf ñuy woo. ñun maanaam mënoo yëngal pick-up Dakar te woowoo ñu ndax loolu suñu loxo la la la tege automobile ak waa XL auto voilà voilà léegi solution bi mooy toog waxtaan mais pas bëgg la sës ci mur bi. Mhm. ak di la teg naan la noo da nga war a fay ba nga affolé tey jii am na benn femme boo xam ne dañ ko woo gendarmerie teg ko de côté. Mhm. mu yendu fa tiit affolé woo ay mbokkam. ñoom ñu dajale un million cinq cent ñëw mais loolu c'est compliqué. ci koo xam ne mu mel ni yow. Mm-hmm. c'est pas compliqué c'est ah. mm-hmm. c'est à dire il faut que il faut que ñoom ni ñu waxee ñoom. Mm-hmm. da jàpp nii ñi ñi nekk ci diggante bi des intermédiaires ñoom ñooy mbuxum quoi parce que li ñu leen nekk di laaj ñi ci kaw. mën loolu laa gëm. Ah, non mais dama jàpp ne. man je ne pense pas que politiciens yi naar bu ndaw lu mu wax te taatu ndaala la ko déggee nan waxtaan te dëgg tax. te les vingt candidats qui ont été ils ont décaissé de l'argent pour dem campagne électorale jël oto jàmbur brindé ko mhm. nga jox ko avance mu bàyyi ñeneen candidat yu bokkul ak ya mu mënoon a jox mu jox la sincèrement ngeen am contrat de confiance bu am seen diggante ak contrat écrite mhm. mu fay chauffeur jënd carte péage pour oto bi buy dem mhm. géral la entretien oto bi vide huile def lu mu def yëpp oto bu nekk dikkee ko un coût global nga revenir at derrière yebal sab cogg mbaa sab suq mu leen di porter plainte ak a xoqatal loolu laa ne nañ out benn consensus je vous demande pas de jeter votre argent par les fenêtres mm-hmm. mais trouver un consensus mm-hmm. même contrat ci suufu contrat dañ naan si le contra n'est pas exécuté y a moratoire de régler ça à l'amiable. mais tëb tëb dem porter plainte léegi ñii ay père de famille lañ ay boromi société lañ ñu ngi nekk ci fitna. Mm. chaque jour ñuy dem police gendarmerie. seen liggéey taxaw élection amul. Mm. président de la république foofu foofu loolu faaw nga jàppale ci gars yi. Moussa Bokar Thiam dagg na internet ba ay waay Moussa bàyyi ñu Moussa dimbali ñu yàlla Moussa dimbali ñu. Moussa ñun dañuy liggéey gerte xeexul. xeexuñu liggéey nga yor internet bi mel ne cadre sa neex ba ku la reex nga roof mu la yow Moussa way Moussa Moussa Moussa billaahi Pa Assane lu ma xonte télé ba waaw sarap lii <laughs> aw ma neex ma daggal ku mooy sama tout tànk bi nga xamante ne dafa. Ah, réer voilà ñu ngi ciy dellu si waat. Mm. on va revenir à vous si vous avez des messages à faire passer parce que là c'est vraiment compliqué. c'est écœurant compliqué parce que comme li ngay wax ni li ngay sama naataango nga wax. Mm. ñun pratiquement location de voiture boo xoolee PDS. Mm-hmm. ñoo couvrir ak Babacar Diop mooy Massalikul Jinaan location. Babacar waaw Babacar mm-hmm. ak Diak. Mm-hmm. ñoom ñëpp burge ba. Babacar moom je le connais très bien Babacar c'est un ami ñoo bokk benn bureau. waaw bu ñu nekk ñoo dend parking man maa yore Daaru Salaam. automobile location. ak euh, Fall automobile ñoom ñëpp Fall automobile de moo gën a baax yéen waaw <laughs> Fall sama jabar Fall la sant <laughs> kooku moom maa sant day soxna comme Fall la sant te Fallen bi kontaan na si loolu donc ñoom ñëpp dañoo àndoon si lii même Jijak mi ngi lay nuyu de maa koy siyaar bu baax. ñoo nekk parking moom it mi ngi si bi. waaw ah, maa ngi naan Jijak tey ngaa dem représenté parce que man bu ne ma saa waay gannaaw dimbaluñu la fii yow yaay dem. ñun ñëpp yow la yebal bu ñëwoon sax duñu ma non du ma waxtaan moom bu ma dikkee si <laughs> passage Pape Parkin bi yëpp leen sant di leen gërëm di xam ne émission bi ngeen def tey mm. pour location de voiture yi mm. da nga ñuy gindi di jàppale waat parce que lu ñu géej jëlee ñoo ñoo waroon a fay ñëw demande émission pour def ko mm. parce que dañu nekk si ay problèmes yoo xam ne dafa metti fi ñu dafa tar mm-hmm. parking ba koo waxal mooy la ma grand dimbali ñu nga dem ndax dañoo sonn fi ñu toll nii li nga wax rek mm-hmm. si ñun day métti. candidat bu leen fitnaal. Mm-hmm. yónnee leen ñu turam rek. ñu ne candidat sangam. Mm-hmm. yónni na ay ndawam ñu ngay fitnaal ña ñu looy woon oto. Mm-hmm. comme ça nit ñi xam. bien parce que il faut que mu am aussi benn rapport de confiance. am sama xaalis a ngi nii da nga may loué oto pour un mois damay dem campagne électorale. nga jël xaalis bi ñu la avance def ci li ngay def yëpp fay ay chauffeur dama am sama benn xarit boo xam ne woyu la dañ ko fay pour vingt et jours ci campagne bu bu tudd tur kenn ma tudd ma tur ñii xam nañ ñii ah, xam nañ tur kenn rek la dañ ko fay vingt et un jours affaire yi ngay def mu ne vingt et un jours léegi dañ koy fay <laughs> mhm. ak cinq mille francs ay ñam ak affaire yooyu noonu fay ko vingt mille vingt et un jours <laughs> ko woowee ko ah campagne bi amul de doo delloo xaalis mu ne non man xaalis bi doon koo mais mais añ bi añ bi mais dëkk bi fi mu toll. d'accord kenn ku ci nekk xaalis ku ñu fi jox xaalis ku ne. waxat bi ma waxat bi ma wax waxat kan la waa oh, boo bëggee ma jox ay indice. ba xam pire ma wax turam. non bul wax turam mais joxeel ay. non maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi ñaan politiciens yi wax dëgg yàlla nit mënoo bëgg askan wa. Mhm. ba pare di ko teg fi naka lor en tey ut baatu askan wi il faut mu am loo xamante ne nii dafa ëpp dayoo xaalis te ñii du seen sago. Mhm. luweekatu oto yi ci Sénégal ñoom bu doon seen sago ngeen ñëw ñu am ngeen nekk seeni i ñu luwe leen wata. ngeen dem def seen campagne. Mm. bu ngeen gañee bu ngeen gañee loolu yàlla ay décider ak peuple sénégalais bi waaye ñii li noonu waroon ak yéen def nañ ko wàccoon nañoo ak ñoom léegi nag ndéem da ngeen a dugaloon xaalis muy avance lañ ci jot a teq def ko ci oto yi. nañu xool ak comme da ngeen di waaj a demaat campagne ah parce que ku nekk candidat moom nekk nga candidat ah, moom xalaatuñu woon loolu nag ah, non mais di ngeen di dem ah, élection xaalis boobu xaalisu denc la rek problème bii nii di ko la ko yëg bëriwul de ñi ko yow ñii ñu ngi dee ñu ko yëg bëriwul ñii ñu ngi dee kii nii nii nii laay doogay xam ni sax yéen a ngi jàngoon teg problème léegi nag sincèrement parlant ñoom nag yàgg naa leen wër de pour defar émission ñu bañ waaye fi mu doon nii dama leen a woo rek ah mais <laughs> eh, am na mhm. parce que ñoom bañuñu toog ñu defal leen beneen décharge ah, wane ni ñoom ñoo ameel diw ci temps de jour ci li des seen xaalis que ça bu ko soxlaa mu ñëw que mu nekk campagne que mu nekk or campagne kon kooku bëgg na waxtaan. Mhm. kon kooku bëggul lekk sa xaalis. Mhm. mais ñoom ñu ne noo ñett tout tout de suite xaalis bi jeexul. mais yow kii def loolu nag ngeen ñuy jox ñun. mais bon doo leen doo leen xam quoi parce que ah. ñun fu muy jógee. mais ki la ki la ki oto dina la damay dem campagne yu diw. campagne diw diw. moom laa lay wax moo yor sa moom ñun jox nañu waa kër Khalifa Sall oto. waaw ah, jox nañu waa kër Boun Abdallah Dionne oto. loolu kay wax naa ko ci déglu yéen waa kër kan ngeen jox sa non man moom joxe ma si campagne bi. yow yaa joxe yow xale yi nga nekkal ñoo joxe. waaw sama nan la message balaa ñu ci Babacar waaw nañ nekk na la message kan la jox ko. Babacar j'ai des amis ñoom Ibrahima Ndiaye. ak ñoom Cheikh Sarr ñoom ñu ngi nekkee euh, ci pont bi. ñoom tam ñoom ñoo joxoon waa kër Aly Ngouille Ndiaye. non jomaay président moom yoruñ ñëpp xam nañ ne campagne ñëpp xam nañ ne campagne ñi ciy dem. jomaay président yoruñ ñoom dañuy dox dem campagne te waa ñoom laa gis ni ñuy dem campagne. te yoruñ benn dërëm te am fit nag laa la wax. te dañ koy def. non non sama ne ne waa jomaay président dañuy dox dañ naan léegi dañ ko constituer en département. kenn ku nekk woote sa quartier kenn ku nekk woote sa campagne man la lii yëpp ñàkk moyen la. <laughs> sama waa parti la ñoo dàq nelaw si àddina. ñoo ngay nelaw. ku si nekk nag boo xam ne émission bi man du ma yeewoo heure bi <laughs> man jaaxal mooy liggéeykat yoo ngeen joxe tuuti eh, quoi. Moustapha ñu koy woo léegi. ñoom ñëpp la lan nga def tey. genre tey man euh, li ma def mooy backstage laa indiwaat ko en mooy que ni euh, damay solu dof du ma dof ko amee damay nekk ci po nit koo xam ne dafa. yow doo dof c'est sûr. c'est sûr que c'est sûr que doo dof. kan man man du ma dof yow wax na man du ma dof rek. bu ma sëqatoo nii bàyyi leen moom. dama laa laaj yow prouvé na yow doo dof. kan man <laughs> mu prouvé que ni du ma dof la de la ne yow prouvé na waaw déedéet man ka laa tudd ñaaka Pape Sidi laa tudd yow eh prouvé na man doo dof. jëgë man. dof ci ci tamit euh, état d'esprit la rek ci xel la mooy quelqu'un qui vit en marge de la société te man je ne vis en marge de la société. <laughs> kon définir nga sa dof ba pare. <laughs> non. <laughs> mooy yow ku wér nga. chaque ndox tàmbali la d'accord njaga njaga njaga bàyyi waaye tamit nga naan ma ay dof ak nii. dugalal waaw tamit njaga bu ma bu ma bu ma bu ma dikkee nii suba teel. gi jàmm yow tijaan nga wala ni. kan ñaar yëpp la non benn rek nga am droit choisir ma xool yow lan ngay def. benn rek. Tijaan nga wala du. non mais Tijaan nit mooy nekk Tijaan donc xam nga. ma ne ndax Tijaan nga wala waxuma la li ngay lay nii layam layam gurgur gi dafa bari waxal lan nga. man ah. man lépp laa. Oh. <laughs> kon maa fekk. parce ñàkk nga fay rek. <laughs> <laughs> doxalal bàyyil jàmm alaaji <laughs> amoo ah, léegi nga ni backstage yi da ngay solu dof waaw damay solu dof nekk ci mbedd mi xam nga boo rombee rek euh, hmm. les inconnus damay ñëw song la ni la daan la toddoo borom oto yi dañ lay mbëkk de dañ lay rek maa ngi ci nekk di kii pour prank friend maa ngi maa ngi xalaat sincèrement yaa ngi prank ñu loolu la ngay gisee boo ñëwee tànk de ñu wane foofu la raay bi téye moom yi jàll léegi soo ma rombee dama naan la daan ma mbaa daan la imagine toi ngay dox ci mbedd dajeeg benn dof mun la daan ma mbaa daal daan. bu doon man ma tëgg la motu quoi non dof la. daan waaw waaw waaw daan ma mbaa ma léegi soo bañee xam nga léegi yaa gaa boo xam des nii man ak moom ñooy ànd complice lay nekk day jóge fee ñëw ni kii dafa sonal nit ñi xam nga leen daal la la la la bëgg nga wax ko boo nee ko biisu biisu boo ko biisoo rek dalay baal quoi mais njaga gaa yi ay bisu nañu. waaw yow. ñu xool ñu xool ñu xool. kii rek boobu. daan na mbaa ma daan. ma daan la. waaye soo ma rek ni ma daan ma daan la. ma daan ma daan daan ma mbaama daan la ma doon war man daan ma la ma daan daan ma mbaama daan daan ma la man maa lay daan copain ay mais caméra kese la ñu tourné <laughs> ah non non <laughs> yow ma. daan ba ama daan daan ba ama daan. waaw loolu loolu. daan ba ama daan. Eh, instant yëru ma. ah. moom jaar. song daan. Hmm? ba ama daan. instant yëru ma mooy loolu. songoo. Sonko luy Sonko. bëre daan mbaa daan. man kay mënuma bëre. ah. mënuma bëre. bëre daan man mënuma bëre. sama rëddu baay man mënuma bëre. ah. man mënuma bëre. bëre. man mënuma bëre. Leewtoo. mënuma. daan mbaa ma daan yére. yére ah. waaw defal naa. loolu bu baax lii. yére. doo bàyyi lii. yére. fii lay toog une ku romb fi da kar ba pare bàyyi lii wax ko bisu bisu. ah bu nga wax bisu bisu mu bàyyi la. ah bisu bisu. ah <laughs> bisu bisu. ah bisu bisu. <laughs> non non non non def ma loolu. ah bisu bisu. ah bisu bisu. ah bisu bisu. waaw baax na doy na doy na bisu bisu. waaw bàyyi yére bi eh, bàyyi yére bi. oui ma da ngeen compter nga ko bisu bisu. <laughs> non grave. ah bàyyi li jàpp si woon ngir yàlla bàyyi li. Eh. eh yow lan la. waaw. Ah. eh. eh jóol fii eh. da nga lay. da nga lay kasa. eh bis. ah bis. doo fi ah. ah. bi dama ko dugal ku de. waaw nga dugal ku de. dóor ko dóor ko doo bàyyi lii ah. kii far réew. do ah. dóor ko dóor ko. wax ko bisu bisu moom de. wax ko bisu bisu. waaw kii kii mooy tas yow doo arrêté ah. waaw. kii kii mooy dox. bisu bisu bisu bisu. ah ah bisu bisu kaay kaay bisu bisu. bisu bisu bisu bisu. caméra cassée gars yi caméra cassée duñ jóg. góor gu ne léegi naan bisu bisu de bëgg na cee génn. dafa sonn bakkan jàmm la bëgg. dafa sonn nee na kaay bisu bisu. sonn na di. loolu la waa ji kat dafa yére bi naaju tàng wi gëtee ko naan ko bisu ah, bisu. non mais da nga ñàkk fayda que. am na beneen partie sax xam naa ci kanam tuuti incha allah bu baaxee euh, grec dinañu ko jox Pape Sidi. incha allah euh, bàcc avant di aller à ce qui da nga am benn xale bu réer. waaw Elimane Seck la tudd mi ngi dëkk HLM euh, Fass depuis samedi ba léegi nii ay mbokkam gisuñu ko sincèrement jaaxle nañ trop daal ku ko gis daal mën leen cee dimbale daal. fu mu dëkk moom. HLM Fass. HLM Fass HLM Fass waaw. d'accord mu mel ne xeet yi tamit bëri na trop parce que fële ca Mbàkke aussi tam am na benn soxna bu ñuy wax Nabou Gueye moom tamit ñu ngi wax ci location oto yi gars yi kidnapping yeeg yooyu noonu yëpp moom daal nekk na ay situation yu compliqué yoo xamante ni Sénégal yi ñu ngi koy dund si jamono ji réer ñi ku soxla ku ko gis nu muy def euh, ku soxla numéro bi mën nga woote ci 77 905 54 66 boole ko ki teggin rek ku ko gis day woote ci numéro nangam nga naan ku ko soxla ku ko gis. na jàppale ay bokkam. jàppale ay bokkam mën na woote ci 905 54 66. nu mu tudd. Eliman. Eliman. Seck Eliman sekk amul dara feebarul dara dalu ko. dara dalu ko. amul problème mu xel amul dara. déedéet déedéet daa réeri bokkam. daa réeri bokkam. <clears throat> booba ak léegi samedi. samedi ba léegi waaw. samedi dimanche lundi mardi ça fait trois ah, quatre jours. quatre jours mhm. ça fait quatre jours. ay mbokkam jaaxle nañ loolu daal ku leen ci mën a jàppale ku ko gis daal mu dimbale leen ci sincèrement. ma nekkee gone da daanaa fàq waaye daawu ma def quatre jours de mm. <laughs> jour laay def rek sama kër maam laay dem fàq foofu ñu yenu ma <laughs> yóbbu ma dikkee ñu dóor ma ba ma tëddal sa bopp mbaaru euh, na mu tudda ci waaw hmm. alaaji na nga am loo bëggoon wax waaw waaw jusque euh, fële ci sama euh, dëkk Tiwaawan benn troupe boo xamante si nii ñu ngi koy wax troupe sopp seen yaay ñoom ñoo war a féete seen <laughs> looy rey njaga ñoom ñooy feere seen euh, tur bi de sonn nañ ci wut tur bi moom dañoo wut tur ba sonn amuñ ñun tuddee non mais tur bi pourtant yàgg na parce que seen 17 ans d' anniversaire 17 euh, ans d' existence la ñu nekk di fête 17 ans d' anniversaire yeah 17 ans d' troupe théâtrale la bu nekk fële ca Tivaouane seen papa nag euh, dégguma seen papa lan paa moo jënd kër gi mooy fay courant mooy fay ndox mooy joxe dépense moo indi maire moo moo la jur moo la yar moo la yërëm moo la yiir mhm. moom daal kenn sopp ko ci kër gi daal no mais yaay bañ ci yaay lañ jiital papa yow ban position la ñëw njaga parce que yàlla boo nekkee papa ngay xam <laughs> li bàyyi di def bi noonu troupe Sopp Seen yaay ñoom ñooy euh, feete seen 17 ans d'existence fële ca Tivaouane et puis euh, le 17 février di ci woo waa Tivaouane ñu ngi ciy euh, rendre hommage tamit un jeune boo xamante si nii waa Baye Manga seen talentueux il était talentueux vraiment xam nga ci wàllu aar bi ma li ñu naan teel a sotti rek xam nga yàlla def euh, mu jël bakkanam ci tur boobu noonu la nekkoon ñu ngi ko ci dinañ ko ci rendre hommage et aussi tamit à l'ancien maire de Tivaouane euh, El Hadj Malick Diop et aussi à Père Gallo Mbengue quoi. yal na ko yàlla troupe Sopp seen yaay ñooy fête seen 17 ans d' anniversaire fële ca bi di woowaa Tivaouane yëpp ñu génn jàpp ci massivement di leen wax ni xam nga troupe bi. seen trouble la trouble dëkk bi la xam ne ñëpp ko moom yàgg na te c'est des jeunes yoo xamante si nii am et déterminé ñu ngi si di nuyu de passage euh, Matar Mbaw ak Daawur euh, Ngom ñëpp waa maa ngi leen nuyu de passage quoi di leen wax ni leen xam ne jàpp leen dina baax force à vous bang. Alaaji Cheikh Ndiaye c'est un mécanicien bu nga xamante ne mi ngi dëkk fële Thiès dafa génn àdduna. bokkoon ci matu làmp Fall demoon nañ seen kër defal ko ñaan ak yooyu mais xaritam bi nga xamante ni moo di. Fallou Dia ñu gën ko xam ci ASBM daf koy defal ñaan si semaine bi nii xam naa ci weekend bi incha allah moom tamit mm. euh, ñu ngi koy ñaanal yàlla parce que jàmbaar la woon lool ci secteur mécanique bi mu nekkoon. macha allah Cheikh Ndiaye. Euh, Cheikh. bisimilah euh, lan mooy nekk seen message balaa góor gi di wax. bon ñun daal mm-hmm. mm-hmm. parce que mooy li may wax rek borom oto yi ba ñu toog waxtaan. Mm-hmm. bon bu ñu ñëwee ñu toog ñu waxtaan comme ça ñu trouver solution. bi gën a baax pour ñëpp daal. Hmm. président tam xaw cee dugal loxoom mën a jàppale nit ñi. président de tal la leneen. <laughs> bon. xam naa ne dina leen yéex a dégg de. <laughs> Ah, ndax euh, Cheikh Niass ba mu demee këram Marème Faye Sall na mu tëbee. ana Cheikh Niass dëgg la bàyyi ana Cheikh Niass. loolu dama <laughs> loolu dama jooy. loolu dama jooy loolu dama jooy <laughs> góor gi. Ah, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la mm. yóbbante nuyoo suñu gaay yooyu nga xam ne ay jàmbaar lañ. ku ci nekk yaa ngi xëy di xëntaloo yóbbu sa njaboot te mu lew doom mm. yàlla leen ci yàlla jàppale. Eh, ndox mi yéex naa yegg si waaye buñ mm. paree nu guux jug rek. waaw <laughs> jërëjëf Pape ñuy delloo nuyoo yéen ñëpp plateau bi am na ah. solo toogaay bi am na solo waxtaan am na solo. di remercier waa Pàcc yëpp rek ñoom Ndiass Faye Mamour Diome sama grand frère Khadim mm-hmm. maa ngi ziare sama soxna Fallène bi Ndeye Fall. macha en passant sama doom moom sa soppe la Baye Gora Diong may jóg mu naa ma si si papa émission bi na neex damay jàngi <laughs> mi say quinze formation bi <laughs> kontaan si émission bi papa ma ne ko après ne la ko envoyé nga lire ko maa ngi nuyu xale yëpp moom sëñ Fallou Ndeye Aram sama doom ah, Fat Diong di lancé beneen message muy sàcc vol de voiture yi mhm. sàcc métti na trop si ñun mhm. démb rek sama benn xarit seen ñu ngi sàcc benn kii am moo koy envoyé benn benn benn kii am kii a mi ngi nii numéro baa ngi nii mm. mën naa ko joxe waaw bien noonu AA cinq cent quatre-vingt-douze PW AA cinq cent ah. Kia bu weex la Kia bi Sorento la Sorento la Kia Sorento AA 592 592 PW ki ko ah. yor na xam ne oto boobu mu yor oto sàcc la buñ ko jàppee moom sax mën nañ ko ci tëj ku la ko jaay lànkal AAP AA 592 PW. couleur blanche. couleur bu weex benn Kia Sorento la borom oto bi dañ ko dañoo sàcc oto dañ ko loué sàcc dañ ko loué. ka ko loué daw ak oto ba. dindi GPS bi. waaw dindi GPS bi léegi nag képp ku ñu jaay oto bi mbaa ku ñu dikk sa service de mine di ko miite mbala sa alkaati na ngeen jàpp ne oto bii di AA 592 PW. ka ko fa indi di ko jaay moomu ko da ko sàcc mu ngi nii xam naa zoomuñ ko ko quoi mais ah, wax naa ko bu teeloon yegg sax dañ koy génne ci télé koy génne télé ay loolu baax ñu ngi leen di sant bu baax yéen tamit di leen gërëm ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm waa réew mi yëpp te di ñaan jàmm am fi ndax euh, marche silencieuse boobu ñu ne woon dañ koy def li ko dalee jet d'eau ba école normal normale supérieure ci li dale quinze heures préfet Ndakaaru nee na bu fi kenn marche looloo nag waral tey foo xëy gis takk der yi lalu ci réew mi fit yi toogut te nit ñi lu ñu dundalee seen njaboot rek la sàkku ci teyu bakkan waaye ñu ngi ñaan yàlla def dal ci réew mi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ba mu des kenn koo xam ne gërëmuma ko santuma ko na nu ak yal nu yàlla atteeg moom mooy Moussa Bokar Thiam waaw Moussa ni ngi nuy gàllankooree ci suñuy liggéey waaw yal nanu yàlla atteeg yow te àpp nañ ko ba cour de la di nga toog ñu ñu jokkor bi jokkor maa joor jokkorloo ak yow bu ëllëg ak jàmm ci beneen jotaay Good Morning